asalaamualeykum internet yu seen Média TV yi ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen wax ngeen way di ci chaîne bi vidéo yi tamit na woon fa woon gars yi bu leen koy fàtte de leen koy aimé bu baax a baax a baax gaynde senegal gi nga xamante ne si mooy Crépin jaata Crépin nag xam nga ni club am muy Monaco déwén Ligue des champions dañ koy jogante parce que ñoom qualifié nañ ci compétition bu mag boobu Crépin jaata nag moom nee na avenir futur am ca Monaco la moom nee na gisul benn yoon jógee ci clubam boobu moom daal Krépin moom li nga xam moo nekk mbëbëtam ak yéeneem mooy toog continuer ca AS Monaco. bu dee nag gars yi joueur anglais bu Manchester City mi nga xam. mooy Phil Foden Foden nag gars yi moom lan tabb mu nekk meilleur joueur bu Premier League anglaise ba xam ngeen keroog ñii di journaliste yi tabboon nan ko mu nekk seen meilleur joueur ba ñu jox ko trophée bi mais bii gars yi bu Premier League anglaise bi la comme ni ngeen ko gisee nii mu téye trophée bi mi ngi noonu gars yi moom Phil Foden daal nee na dañ ci saison bi képp kuy joueur boo xam yaa nga ca Premier League ba moom Phil Foden moo la gën a tàkk moo la teg tànk loolu gars yi est-ce que ànd ngeen ci moom fil Phil Foden liñ ko décerné meilleur joueur de la Premier League anglaise moom nag ci Premier League bi dugal na fa den 17 buts def 8 passes décisives moom joueur boobu nga xam ma nga ca Manchester euh, City moom nag Phil Foden bi nga xamante ne si moom lañ tabb mu nekk meilleur joueur ci Premier League ba moom nag laaj nañ ko ni ko ren ban équipe nga dajeel am ak ñoom jafe-jafe loolu ñu indil la giitangaas indil la problème mu ni équipe boobu Real de Madrid la ñu ni ko nag ren ban joueur nga dajal joueur bi indil la giitangaas indil la problème ci biir terrain bi mu ni Toni Kroos la moom Phil Foden moom moo ko wax jeune joueur brésilien bi nga xamante ne si ca Palmeiras la nekk mu nekk Willian Estavao Estevao nag gars yi Chelsea dina ci teg loxo parce que gars yi Chelsea offre bi nga xamante ne sii moom la def dafa ëpp li Palmeiras doon laaj ci joueur bi ñoom Palmeiras ñu ngi doon laaj lu tolloog cinquante cinq millions d'euros mais gars yi Chelsea moom offre bi mu def ëpp na sax dix millions d'euros te gars yi Chelsea offre am bu njëkk trente deux millions d'euros la woon ñu daat koy rejeté Chelsea di yokk ba yegg ci soixante cinq millions d'euros boo boolee bonus yépp loolu lay doon fi mu toll nii nag gars yi diggante Chelsea ak joueur bi muy Estevao amul benn jafe-jafe am nañu accord ci côté yëpp bu dee nag ñi nga xam ñoom ñooy euh, waa palmarès ñoom offre bi nga xamante ne si Chelsea defal na leen ko ñoo ngi xool modalité yi nan lay demee actuellement gars loolu la nekk di càmbar mais daal gars yi jàpp nañ ni fi mu toll nii William Estavao jege na lool lool lool Chelsea bu Nicolas Jackson voilà gars yi mu nekk nag jeune joueur brésilien boo xam entraîneur am daf koy tagg rek entraîneur am nga xamante ne si mooy Abel Ferreira moom neewaat na carrément man li ma gis ci Estavao gisuma ko ci beneen jour ci at yi nga xamante ne si moo jàll mu ni qualité yi nga xam daf ko am ay qualité yoo xam dafa spécial ci moom kese la ko gis moom nag entraîneur bi loolu moom moo tax jamono yële mu ni woon dafa bëgg club bi teewal ko Estevao ba deux mille vingt sept mais gars yi fi mu toll nii ak dooley poche bi nga xamante ne si Chelsea ànd na ak moom. gëm naa ni daal Estevao dana fa bawu dana ko tàggu di ko bàyyi bàyyi daal di dem foofu ci Chelsea. Chelsea nag seen entraîneur mu nekk Mauricio Pochettino moom nee na nag du bëgg. du ñu kontaan duñu ñu célébrer du ñu fecc bu dee Chelsea jeexale na ci cinquième wala ci sixième place bi nee na loolu moom mënu ci am mbégte boo xam dina ko may muy jubilé donte Chelsea nekkoon na ci ay jafe-jafe ñuy ñëw tey ba Chelsea nekk cinquième wala sixième mu ni moom parce que Chelsea club bu mag la xaarewuñ ko ci cinquième ak sixième place mu ni loolu moom moo tax liggéey bi na ko fans yi gën a gëm te liggéey bi projet bi moo ngi dox ñoo ngi gis résultat yi te nee na déwén mooy dàq ren voilà gars moom Mauricio Pochettino daal loolu la wax moom entraîneur bu Chelsea bi bu dee légende bu Arsenal bi nga xamante ne si mooy Thierry Henry Thierry Henry nag nee na bu fekkee Arsenal jël na Premier bi bu benn journaliste ñëw di ko dekk micro di ko interviver loolu gaa yi Thierry Henry moom moo ko wax Thierry Henry nag li tax mu wax loolu situation bi fi mu toll nii diggante Chelsea ak Arsenal nee na moom bu dee analyser rek teg ko ci football danaan dal City bi yu mel nii tàmm na ko. bu yegsee fii nga xañ ko titre bi day nekk loo xam lu jafe la mu ni parce que Manchester City ci at yi daf koo def ay yoon yoon yoon mu ni keroog rek contre Tottenham gis ngeen match bi ñu ngi ci doon xaar Tottenham mais gis ngeen City dafa ñëw daat koy dóor jàll City boobu nag yu mel noonu daf koo tàmm moo tax man daal sama yaram fi toll nii day daw sama yaram day daw ci Manchester City parce que mën naa ni daal bu ma dee analyser rek dama naan City daanaka jël na trophée bi xañ ko ko du yomb mu ne nag mais ci beneen wàll ga bu ma indee sama mbubbu supporter moom dama naan ba léegi mën nañ koo gëm ba léegi Arsenal mën naa def dara parce que mbir bi football kese la mu ne nag loolu moom moo tax ni mu gëmee ni daal City day jël mbir mi bëggul Arsenal jël titre bi ñu naan ko yaa waxoon nii City dangaa gëmoon City daf koy jël muy expliquer ak yi demee noonu mu ngi noonu gars yi moom légende boobu nga xamante ne si mooy Thierry Henry loolu la nee na bu ko kenn interviewé gars yi interview nag moo nar a jëlee avis ca Barça ba nga xamante ne sii fa la nekk parce que xam ngeen ni gars yi contre Almeria conférence de presse bi voilà Xavi journaliste daf koo laaj interviewé ko ci situation bu Barça Xavi ne di ratatati di ratatati ratatati boobu nag li mu ci wax lépp dara neex ci direction ba looloo ko fa nar a jëlee démb nag gars yi Xavi boobu maa leen di bëddal nii am na ay joueurs yoo xam ñoom yàgg na noo wax seen agent ni leen Xavi ni mu leen di traité baaxul Xavi daal dafa mel ni ku leen di maltraité joueurs yooyu nag gars yi Mundo Deportivo am na ñu ci lim. nee na Robert Robert Lewandowski ni ko Xavi di traité neexu ko wax na ko agent Vitor Roque moom gars yi kenn waxul ay waxam parce que ñëpp xam nañ ni moom euh, agent mi ngi jooy fan yi yëpp muy kër yi bu dee Joao Félix tamit noonu wax na ko agent ba ci Ronald Araujo ñoom ñooñu ñëpp yàgg na noo kaas ci seen agent ni leen Xavi daal ni muy doxale ak ñoom ñoom gisuñ ci seen bopp Xavi boobu nag gars yi mu toll nii moom yoonam leer na dafa mel ni ko ne ci mbartal euh, kenn mënatu koo te bari ko ci mbartal voilà day dem day dem day jógee FC Barcelone ñoom nag Barça ñoo ngi wut entraîneur ci entraîneur yooyu ba léegi ñu ngi ciy lim Hansi Flick muy doomu allemand euh, Allemagne ñu ciy lim tamit Rafa Márquez bi nga xamante ne si moom moo yor Barça Athletic ba. Alexis Sanchez bi nga xamante ne si mi ngi woon foofu ci Inter de Milan moom nag daf fay jógee voilà agent libre la fay jógee nee na nag am na ay club yoo xam ci ay réew yu wuute. ñoo ngi waxtaan ak moom moom nag gannaaw bu jógee ci Inter officiellement moom Alexis Sanchez ancien joueur bu Barça bi dina tànn ban club lay dem football league yi dana nag Inter ki ñu koy remplacer mooy Mehdi Teremi bi nga xamante ne sii moom mi ngi foof ca Portugal di fa football ci. équipe boobu nga xamante ne si mooy Porto foofu la nekk moom nag doomu Iran la wala joueur international iranien la moom Mehdi Teremi bi nga xamante ne si daal nee moom la Inter de di indi mu daal di Alexis Sanchez. ñaari doomu Sénégal yi nga xam ci Olympique de Marseille la ñu ne mu nekk Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye entraîneur ba nga xamante ne sii moo ne actuellement ca Marseille muy Jean-Louis Gasset nga xam moom nee bu saison bi jeexee day bàyyi doon entraîneur day jël retraite am moom ndax xam ngeen bërki démb nee woon na day yoole voilà nee woon na dina wax président bi joueurs yi nga xam mérité nañu continuer ca Marseille doon ay joueurs Olympique de Marseille ak joueurs yi nga xamante ne si amaluñu benn njëriñ équipe bi amuñu niveau bi joueurs yooyu dañ leen faa war a moom nee na loolu du ko wax ci publiquement ci média yi mais dina ko wax président bi ñu laaj ko nag ci Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye mu ni ñaari recrues yi ñoom ci avenir club bi lan bokk kon mooy maanaam moom buy yoole ñi war a jóge du ci boole ñaari doomu Sénégal yi mu ni nag sama première saison la ak ñoom ñoom it seen première saison la foofu ci Olympique de Marseille mën naa jafe mbiru adaptation li ñuy xaar ci ñoom ak ak ay mbir yu bari mais fi mu toll nii dara jàllagul parce que première saison bi la te ñoom ñu am ay qualité la ñu am nañu talent donc kon mën nañ xaar saison yi nga xam mi ngi ñëw ñu wane seen bopp daal di toj Olympique de Marseille parce que seen contrat li des bari na ñu ni ko est-ce que am nañ charisme bi ak caractère bi pour mën a imposer wu ci Olympique de Marseille. moom nag Jean-Louis Gasset foofu la yem mu ni loolu moom c'est une autre question loolu beneen mbir la loolu moom beneen wàll la gannaaw ba ko laajee ni ko ñaari doomu Sénégal yooyu am nañu charisme bi am nañu tamit talent bi pour mën a euh, toj Olympique de Marseille loolu moom dafa ni euh, beneen mbir la loolu la ci tontu moom Jean-Louis Gasset. Sofiane Amrabat bi nga xamante ne si Fiorentina moo ko able ca Manchester United United nag duñ ko téye bu saison bi jeexee moom doomu Maroc bi dañu koy bàyyi mu daal di dellu euh, ca Fiorentina. neneen nag am rabaat boobu am nay club yoo xamante ne si bëgg nañ ko foofu ca Angleterre foofu ca Premier League anglaise ba club yooyu nag gars yi nee nañu Fulham la ak Crystal Palace ñoom ñi ngi suivre joueur bi ñoo ngi koy topp parce que ñoom eh, danoo bëgg daal bu dee jóge na ca Manchester United ñoom ñu nas ay pexe daal di koy indi ci seen équipe yooyu bu dee nag gars yi Navas bi nga xamante ne si moom ca Séville la nekk moom nag dafa war a jóge parce que contrat am dafa jeex tàkk. moom nag mu ni fans UFC Séville moom Jesus Navas nee na leen carrément moom mosul xaar ni moom dina jóge dina mos a jóge ci club bi mu ni parce que daal club bi mbëggeelam gépp da koo yokk club bi FC këram la këram la nee na nag moom xaarul woon bis ñëw mu daat fay jógee nee na nag moom ba fi mu toll nii waa FC Séville kenn woowu ko ni ko prolongé contrat ak yu demee noonu nee na zéro appel zéro appel fi mu toll nii sax amu ko ci lu jëm ci waa Séville ñu woo ko ni ko di nga prolonger sa contrat wala doo ko prolonger nee na kenn waxu ci ak moom nee na nag comme kenn waxu ci ak moom te contrat am day jeex moom loolu moom mooy dafay jóge ci club ba mi ngi noonu gars yi loolu lees waxul la ci mbiru joru Séville boobu nga xamante ne si mooy Jesus Navas gars yi seen média TV la wéy leen di abonné di aimé bu leen neexus tamit ngeen di partager.